Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ ñu nee góor ngóoraa tax. salaamaaleykum mbokki xarit yi taaxeelu Sunugal 24 dañ leen di jaajëfal ci tànneef gi kóolute gi ñu ànd ak yéen leen xibaar yi fi jot a ruusee. dañ koy dooree ak position bi nga xam ne Sénégal daal na koy taxaw ci ñàkkum liggéey bi ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bu ñu génnee nag la nga xam ne mooy bilan bi ci réew yi nga xam ne ñoo gën a deltu ginnaaw ci ndaw yi liggéey Sénégal daal dinay nekk nag troisième position téeméer boo jël ñeent fukki ak juróom-ñett amuñu ab liggéey ña ko xamle nag di organisation internationale du travail ca ñetteelu ba nga xam ne moom la daal di nag taxawee ginnaaw Burkina Faso mi nga xam ne mu ngi ci 77 17 pour cent ak ñi nga xam ne ñoo di Syrie di 50 pour cent Sénégal nag jot nañu am ci moom tiitaangeeg njàqare ñenn ñi am yaakaar ne li waral ndaw yi jël ay gaal ngir dem ca bitim réew. ñu àddu wax ci leneen lu ñeel politique élection locale yi nga xam ne moom la ñu doon nattable dina am déet daa mel ni njort ngay bëgg rafet ci yooyu les élections ndax daal dinañuy génne li nga xam ne moom moo di xaalis bu takk yokk ko ci budget ministère intérieur bi mu di 7 milliards yoo xam ne daanaka ñu ngi waajal lii di élection yi naam dañuy am yaakaar ne du am ci mars bi ñu dëgmal jàpp guñu beneen bis buy fësal ne yooyu les élections dinañ ko amal waaye du ñi ngi njortu ne du génn ci 2021 bi ñu àddu wax ci leneen kumba yàggut ngéwél mi di pendoo Guissé ginnaaw bu mu jugee woon ci langu célibataire yi daal di nag plongé ci langu marié yi ñu doon am yaakaar ne dina fa toog daanaka daal jikkooy xorondom la wane foofu roñu roñu dem roñu roñu ñëwaat bi ma ngay fësal ci réseaux sociaux yi ca la ñu jote gis moom Pendo Guissé moomu daal dinay divorcé ci sëy boo xam ne matulaat ñu wax ci lu ñeel réseaux sociaux yi Twitter di application boo xam ne daan euh, dimbali ñenn ñi ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey communication yi ñenn ci kilifa yi ci àdduna bi moom lañ doon jëfandikoo dafa daal di nag nekk en panne démb ci alxames ji tax nañu ñu bari ci ñoom jamono ji am nañu njàqare ndax fa la ñu doon faral di jaarale seen ay communication ñoom nag di nañuy génn lancé am message ne boobu le panne du ña nga xam ne ñooy jëfandikoo Twitter ñoo ko waral waaye panne boo xam ne àdduna wérngel këpp la laal te itam ñu ngi ciy def seen kem kàttan ba daal di koy dépanner ci nu mu gën a gaawee. ñu wax ci leneen lu ñeel askan wi mbiru Boly di ab xale bu am fukki at ak juróom-ñett dëkke woon ca yi doon doon ab basketteuse ginnaaw bu ñu ko doon war lu tolloog weer boobaak léegi ñu doon jàpp ne dañu ko daal di enlever ñenn ñuy jàpp ne itam dafa fàq moom Boly Kane moomu daal di nay yóbbu boppam ca police di justifier lu waraloon mu daal di nag euh, dem wala lu waraloon ñu daal di ko yóbbu ba léegi kenn mënul xam lu leer ndax Boly Kane moomu dañu ko daal yóbbu woon wala dafa daal fàq ak li waral police ubbi ci ab ca cité Fadia askan wa fa yeewoo sonn nañu lool la leen sonal mu di ñàkkuk ndox gi nga xam ne saa suñu xëyee yaakaar ne dinañ ci am saafara waaye boobu ak léegi mu mel ni ñi nga xam ne ñoo ñoo dëkkee ca boobu lee gox di njiit yi dañu leen a fàtte ndaxte ndox bokk na ci loo xam ne kenn mënu ko ñàkk yooxu nañu wàllu te itam ne nañu bu ñu leen andilul saafara ci nu mu gën a gaawee dinañu takk seen ay morso yu xonk ngir fësal seenu naqar ñu àddu wax ci mbiroom Pape Cheikh ak coow li nga xam ne moo doxoon digganteem ak soxnaam soosu di yaay dara leneen lu ca bees loo xam ne daal dinay ub boppi nit ñi te itam du lu nopp neex a dégg ndaxte ki nga xam ne moo di Pape Cheikh Diallo nga ci États-Unis waral loolu fa amal ab jongante ci ndaw yi yi nga xamante ne ni doon nañu def ab sélection ngir nañ ña nga xam ne ñoo gën a fës ci monde bi Pape jàlloo ak demam nga ca la ko agressé jël téléphone am daal nag yónnee photo ak ay vidéom soxnaam soxna sa nag daal di ko cay jàpp di ko chantage ba tey soxna sa nanguwul wax yooyu les photo ak vidéo ya waral muy chantage Pape Cheikh Diallo waaye mbir ma euh, doy na waar mbiri 10 000 problème ak jàpp ga ñu ko jàppoon ca màggal ak Touba ca Mbàkke ginnaaw bu mu doon tox li nga xam ne dañoo ko fa doon aaye mu di yamba euh, daal di nañu koy àtte demb nag ci alxames ji ba daal di koy tëj fukki fan ak juróom yoo xam ne da koy euh, toog ci kaso gi. ñu àddu wax ci leneen coow li nga xam ne moo doxoon diggante maire bu Guédiawaye di Alioune Sall ak waa D-Média eh, ginnaaw bu mu leen jébbalee woon ab plainte ba yëf ya mujje ci loxo procureur daal nañu leen di déglu démb ci alxames ji ay dara la mu jot a xamle eh, ca la waral nag ñu jébbal ko boobule plainte nee na moom jëlul yëf ya comme moo ko bind da koo reprendre te itam eh, mi ngi soog a gis li nga xam ne du mel nii la après kuy journaliste buy def revue de ñu lay porter plainte wax ci wàllum pétrole mi ba waral avocat Alioune Sall ba di demande ndàmpaay ca waa des médias lu tolloog 1 milliard boobu la àtte nag ñi ngi koy euh, waajal tey le 19 novembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal la ñuy xam fu wànet di mujjee ki gëtam ca Touba ak fo policier ba ñu fa jàpp muy wuyoo ci turu Abdou Ndaw doon profito ci askan wi ci jamonoy mbas mi nga xam ne moom la doon sole ab tëneem di euh, dogale nit ñi di leen interpeller waaye itam ngeen ñu takk yooyu le masque ca lay profito ngir agressé leen ka mu agressé nag ba jël ci moom ab téléphone portable ak lim bu tollook ñeenti junni la waral ñu dal di koy topp ci yoon jamono ji ba tëj ko ñaari at yoo xam ne juróom-ñetti weer ya lay tëdd moom Aliou Ndaw li koy toppee diffamation ak escroquerie ñoot wax ci leneen ginnaaw coowal sextape bi ñu nemmeekoon ca Maris ak cité mixta police daal dinay tegaat loxo ñetti ndaw yoo xam ne dañu doon yëngu ci mbirum les benn la ca gën a bett ñëpp mooy xale yooyu ay mineur lañu li ko dale fukk ak juróom ba fukki at ak juróom-ñaar la ñuy am la ñu leen di toppee mu di euh, pédopornographique bi nga xamante ne nii daal nañu koy démantelé nag euh, ka ko jiite doon jëfandikoo xale yi xale yoo xam ne mineur la ñuy doon duñu am sax fukki juróom ñett daal nañu leen di teg loxo ba fa yéene leen àtte ci kanam yoon. ñu àddu wax ci wàllum tàggat yaram Ferdinand Coly di ancien défenseur ci équipe nationale daal dina yëkkati ay kàddu wax ci tolluwaayu équipe bi ak défaite bi nga xam ne ci la ñu génn nee na kenn nattablewul ne Sadio Mané mooy joueur bi gën a mag jamono ji ci équipe nationale te itam day am influence bi muy def ci ñi nga xam ne ñooy seeni adversaire waaye naam bu absenté war naa mën a tax équipe bi booloo doon benn ba gagné te itam bu ñu basé wu benn yoon ci Sadio Mané ndaxte jongante doon na loo xam ne amaana tey mën ngaa ñëw ëllëg doo ñëw kon nañu gën a góorgóorlu booloo doon aw say ngir mën a euh, gagné seen match yi nga xam ne ci moom la ñuy dëgmal ñu àddu wax ci mbirum woykat bii di Pape Diouf génnam ga ca Prince Art ak léegi ñi ngi doon toog di ko déglu daanaka daal dinay fësal dëggalaat li nga xam ne moom la mënee ci wàllu musique ak albumam bu bees bi nga xam ne moom la génnee dippee ko ñi nga xam ne ñoom ñooy góor ñuy trompé waate Pape Diouf nag daal dinay wax yëkkati ay kàddu rafetlu teewaayu ñi nga xam ne ñoo fa jotoon waykat yi ak journaliste yi waaye itam nee na doonatul koo xam ne am na lenn lu muy prouve askan wii di Sénégal tey itam na nga xam ne moom lay liggéeyee mi ngi koy rafetlu bu baax a baax ak entourage ba nga xam ne ñoo nekk ca ginnaawam te itam dina doon ndaw loo xam ne luy jariñ réewam la di Sénégal dañ koy jeexale ak point Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l' action sociale amal tey ci àjjuma ji yemook fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre benn nit moo ñàkk ba kanam kaay grave yi mi ngi toll ci juróom-benn ñi nga xam ne wér nañ ba ñibbi seen i kër lim baa ngay gën a takk waaye ñu gën a booloo doon benn xeex mbas mi mu génn réew mi. yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu suñu gaal 24 fii la ñu yëkkatee bi les jotaayu xibaar ñaan ngeen wéyal suñuy programme ñaanal leen kenn lu jàmm leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah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 713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu nee góor ngóoraa tax. Sunugal 24